salaamaaleykum mbokki xibaaru guddi si bokk na ci li ci nar a gën a fës benn waay bu bàyyeekoo foofee ca Guinée Bissau jaar ci li nga xamante ne moom mooy fleuve bu Bambali utali Sédhiou foofee itam daal dina tax rek ñu daal di ko tegu loxo di xool ananes la ñuy def ba daal di xam ndax yor na wopp soose am déet ak nu munti demee préfet bu diwaan ba daal na jël dogal dakal lépp lu jëm ci wàllu pour dem beeg dikk bi dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi lu toll ci ñaar fukk ak juróom benn ci ay nit foofee ca Thiès fukk ak juróom-ñeent yi daal di am ab wóoru péng loolee nag gis nañ ne ñetti cas yi nga xamante ne déet woon nañ ko def maanaam ñi nga xamante ne dañ leen yóbbu woon ci quarantaine boo moytul fii léegi ñetti fan dinañ leen bàyyi loole ñoom nag lu daal di xam ne niki tey jii gis nañ ne nag ñoo ngi am tan lu dal ay bés nga nii ba léegi si dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ca boobu jamono gouverneur bu diwaan ba di Mouhamadou Moustapha Ndaw daal di jël dogal jàpp ne nag lépp lu jëm ci wàllub autorisation spéciale kenn dootu ko joxe foofee ca bërëb ba ndaxte gis nañ ne nag dafa am ju njaaj ak yeneen yoo xamante ne da cee làqu doon loo xamante ne day lawal wopp soosee di Covid 19. la àddu ci mbiram euh, facture yi nga xamante ne dañ koy fay foofe nag monde rural ba daal di am ab njàqare rawatina ci kàddu yi nga xamante ne jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu pour ndox ak assainissement daal dina ko yëkk ci ni ñuy jëlee facture yi loole dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi ca booba jamono biti réew lu toll ci fanweer ak juróom-ñeent doomu aadama yu faatu ci coronavirus loolee yëpp doon ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci diaspora bi bu ñu sukkandikoo ci Horizon Sans Frontières mi xam le ne nag nguurub Sénégal dafa war a wane la nga xamante ne ñoom ñooy doomu sénégalais yu faatu ca biti réew bu ko defee ñëpp gën koo xam ak yit daal di ci am ab taxawaay bu am solo dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi yooyu xibaar ñu jeexale ko ci lu jëm ci wàllu wax sa xalaat nañ ko waxee lu jëm ci coowal facture yooyu ak yit la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu cas coro communautaire yooyu ci Covid 19 kii di Assane Thioune moo féete ci xarala gi. Birama Ndiaye. sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teewlu bu ngeen di teewlu seen rajo Sud FM 98.5 ak mboolem suñu bànqaas suñu lëkkaloo mbokk yi ñu leen ko waxee ci ndorteelu xibaar yi tey nekk juróom-ñeenti fan ci weeru avril atum ñaari junni ak ñaar fukk dem foofee ca diwaanu Sédhiou ca Guinée Bissau benn waay bàyyi ko foofee jël gaal dugg ci fleuve Bambali ca Sédhiou. ak it ànd ak yeneen ñetti nit ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci gaal boobee daal nañ jël prélèvement nag xool ba xam ndax daal dinañ am wopp soose am déet ak nu mu mënti demee lu jëm ci wàllu bu dem beeg dikk bi ci biir frontière boobu rawatina ci dex boobee préfet bu diwaan ba daal na ko dakkal Moussa Dramé Moussa Dramé la ñuy dem ba Sédhiou ci lu nga xamante ne moom mooy doomu Guinée Bissau boobu bàyyi ko foofu traverse fleuve bu Bambali ak ñett ñu mu àndaloon fi mu ne nii nag daal dinañ jël ay prélèvement xool ba xam ndax am nañ wopp soosee am déet ak nu mu munti demee.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 ndax it dama dëkk bu ñuy def di ci làqatu am na it lu bare loo xam ne mënees na ko yàq ci xeex moomu la ki son yenn si Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. dañuy desandeeg yow foofee ca Kolda juróom-ñaar nit ya nga xamante ne daal dinañ am ab wopp soosee di Covid 19 ña yëngu ci wàllub centre opération d' sanitaire ak it kilifa yi yëngu ci wàllub wér gu yaram.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 ñaar fukk ak juróom benn ñu am feebar bi wala bu njort na am nañu feebar bi foofee ca Thiès fukk ak juróom ñeent yi daal dinañu wër ba ñu delloo leen seen kër ka contact yu ñu doon topp nag boo moyul fii ak ñetti fan dinañ leen bàyyi boobu ba si itam amul kenn ku fa am bees lu tallu ay bés a ngi nii loolu tax na kilifa yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk daal di euh, xool nu ñuy taxawee lu jëm ci wàllu cas communautaire yi. ak nu mu fa mënti demee ndaje bu yaadaal nañ ko fa amal ngir saytu lépp lu jëm ci wàllu wopp soosule ñu déglu ñu teewlu docteur El Hadj Malick Ndiaye moo nekk médecin chef région médicale bu Thiès ak Babacar Ndao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 biñ demee gouverneur jël ay hôtel réquisitionné ñu jël ñenn ñu dugal leen ci hôtel yi ñoo ñëpp si wér nañ leen ba pratiquement ñoom ñëpp dépassé nañu seen 14 jours ba ñibbi nañ seen kër ñu ñu fa dese foog naa bëri ñu buñ fii Thiès 5 la ñu Mbour également 5. te buñ toggee fee toggee buñ toggee fii ak vendredi ñoom ñëpp danañ jeexal seen suivi donc buñ paree ci lool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 ci noonee nag la dakkal lépp lu jëm ci wàllub autorisation spéciale yi nga xamante ni nit ñi dañ ko doon wut ngir daal di doxi seen soxla lépp la fay jaaba nikki ëllëg itam fa yéene nañ ko tëj lu dale bi ko lu dalee juróom benn juróom-ñetti waxtu ci suba jàpp ñaari waxtu tisbaar bu ñu noppee bu ñu julee tisbaar ba noppi nag dinañ tëj lépp lu fay jaaba lu jëm ci wàllu quai de pêche bu Mbour itam naka noonu Mouhamadou Moustapha Ndaw lay wuyo moo nekk gouverneur région bu Thiès ñu teewlu ko Babacar Ndaw ñun déjà région bi dañ amoon ay cas communautaire ñun suñu premier cas dans la communauté Thiès la woon moo tax dèjà jëloo nañ ay disposition yoo xam ne tëj marché yi wala wàññi heure yi xam ne la marché yi ubbeeku euh, jël également ay disposition pour que rassemblement yi ñu doon wax dèjà ministre de l'intérieur interdire ko ko appliquer mais li ñu def nag léegi mooy renforcer mesures yooyu ñu jëloon d'abord rassemblement yi gis na ne respecté wuñ ko tout le temps région bu mag la population dafa bëri moo tax ñu tam dinañ yokk personnel bi ñu doon déployé donc force de défense et de yi dinañ renforcer personnel yi nga xam ne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 wàllu dem beeg dikk bi. waaw wàllu dem beeg dikk bi tamit li ñu si wax mooy d' abord am na mesure si ministre de l' intérieur jël te vraiment léegi moom na leer ne ku dul ku dul euh, malade wala néew bu ñu yóbbu wax dëgg yàlla duñ la may ñun autorisation. la may autorisation xëy na autorisation di gis nañu circulé parce que autorisation yi ñu joxe woon mi ngi valable ba tey mais autorisation bu bees moom dootul am.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 ngeen fi wéy di fi taataan xibaar yi ñu àddu ci coow la amoon diggante nappkat yu nekk ca Guet Ndar ak yu yaraax yi fii ci Caaroy loolee nag tax na ña nga xamante ne ñoom ñoo nekk comité local bu pêche artisanale bu nekk foofee ca Ndar daal ci yëkki ay kàddu jàpp ne nag ñoom ci seen wàllu bopp violé wuñu lépp lu jëm ci wàllu état d'urgence boobee tax rek seen gaal yi nga xamante ne dañ leen a yàqoon ñuy sàkku ci nguurub Sénégal mu jël ci ay matukaay ñu teewlu kenn fa ñoom di Ousmane Sène moo nekk président CNES ñu teewlu ko ak li ñu jaaxal mooy tey président de la pare yeneen autorité jaar gannaaw di wax waxu di tegaat mel na que beneen état dafa am si biir Sénégal bu dul waxu président président dafa wax ni képp nit ku ne li xew feebar bi am képp ku ne fa nga dëkk fa nga nekk na fa toog bu fa jógee président moo wax la wala déet <laughs> président wax ba pare am autorité yu jaaral gannaaw su préfet la xaw ma préfet ak Abdoulaye Makhtar Diop di waxaat leneen pour lan ñun bi nga xamee ni Mauritanie gii ni demoon rek 6 pour cent yi Mauritanie dafa pour cent yi daal di jot ñëw ñu delloo leen ña fa des ni leen yéen man ngeen toog ña fa def 15 jours ñu leen yéen mën leen génn mais ñii di soog a agsi nan dellu Mauritanie gii ñu frontière loolu la def mais si biir Sénégal président wax teg plan urgent ñun noo ngi am sécurité bu wóor am na ñu ne ba Kafountine gaalu fii laa tourné yi noo nga fa ak gaalu fele-fele mais dañ leen wax toog leen foofu ba président dogal bi mu jël mu mu dindik ñoo nga foofu toog kenn buusewul ñi leen nga Espagne kenn buusewul ñi nga xam ni nag dañ dem jëf-jëfin ju njaaw googu di wut ñu leen ngemma di wala wala di wut ñu rafetal seen ay seen ay mbir loolu ñu def tegunu ko fenn na président xam ni tegunu ko fenn dañu def lu leen neex te ku def lu leen neex am war na am lu la si fekk parce que ñun du ñu teggi war waxu président de la république président moo wax ñu respecté li mu wax mais ñee jaar gannaaw naan nanu génn nanu def nii ñooñu lool ñu wax dara amu si dafa am ñu leen jàmm ñan wax na Abdoulaye Makhtar Diop wax na maire wax na lool loolu wax waxu président moo gën kawe président moo teg plan d'urgence ni dafa am feebar bu am génne fond bu bëri alal jurul jeex teg ni képp sénégalais ku mënti doon ku ne fa nga ne na nga fa toog ba lii jàll kon keneen ku waxaat soo wax dafa niil waxu président la ñu déglu tomo jara déglu ñu àddu ci beneen mbir ñeneen ña nga xamante ni itam waxu kooke daal na ëlëm seen xel bokk na ci monde rural foofee ca njaareem gis nañ ne itam lu jëm ci wàllub payoru facture ak courant bi na ko jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub assainissement ak ndox mi nu ko waxee daal na indi ëlëm tàng ci seen mbir Adama Ndiaye. kuréel gi nga xamante ñoo boot ñi nekk ci kaw gi ñu ngi rafet lu bu baax a baax dogal bi njiitu réew mi jël ngir nag fexe ba facture courant geek ndox yi mu bañ koo fayeku ñi nga xamante ni ñooy ménage yi néew ji doole yi ci wàllum xeexu mbas mi kuréel googu nag di ñàkk a rafetlu kàddu yi nga xamante ne ministre bi yore wàllu ndox meek assainissement bi wax na ko ne ñetti milliards yi teg ñetti téeméeri millions yi nga xamante ni moom la ñu jagleloon kaw gi ci ndox lañ koy dugal ak branchement sociaux Moussa Ndaw bokk ci kuréel googu di ñu ci indi leeral. Sénégal benn Sénégal la ñëpp a ko bokk situation ñëpp la laal président Macky Sall xam loolu ba jël ay dogal ci pour euh, jàppale population yi nga xam ne ñoo ne ci dëkk kaw yi te ko wax dëkk koo xam ne dëkk kaw yi fi la jafe-jafe yëpp ndax ñi doon liggéey ñëpp nekkan ndakaar ñëpp ñibbisi na ma bëgg nag lépp loo xam ne euh, bëgg nañ ko xam ci forage yi ni muy doxee ci wàllu carburant wala courant suñ demee ci préfet yeeg sous préfet xam nañ forage yu ne. nañuy nañuy utiliser bu dee ci courant xam nañ ñaata la ñuy fay buñ ko bëggee xam bu dee ci gasoil xam na ñaata la ñuy fay pour ñu bëgg buñ ko bëggee xam loolu nag laa bëgg euh, interpeller pour euh, président Macky nga xam nun ñëpp njabootam lañ aw askanam lañ mu xool loolu nañ lañ koy mën a ba àll bi xam nañ jafe-jafe vraiment fi na tar na lool lool lool lool. ñoom ñu ne sax bu par parparloo waree am ci kaw gi la war a ndax ñoom seen doolin bariwul. te boo xoolee fii ci àll bi xam nañ ni file la jur yi ëppee fas yeeg nag yi ak xar yi yëpp fii la ñu ne di ci naan kon loolu mu bëgg tamit comme dañuy jàppale askan bi foofu la ndimbal li gën a gaawee. jëwriñ bi ñu dénk wàllu ndox meek assainissement ci conférence conjointe bi mu amaloon nee na daal nguur gi amul moyen bi nga xamante ne dina tax ñu mën a appuyer ñi nga xamante ne. ñooy kaw gi ci wàllum fay ndox mi ndax nee na daal jafe-jafe bi ñu am mooy amul benn kuréel bu nga xamante ne moo yore ndox mi ci kaw gi yépp Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. ponk lay doon ci wax sa xalaat ñi àddu ci beneen mbir Tridem Pascal loole bu ngeen ko déggee mooy ñetti fan yu mujj laata ñu daal di tëj kooru katolik yi door na niki alxemes gi nag ba nar a am jeexal niki gaaw gi ñu dëgmal. jàngu gi moo ngi sàkku ci mboole sem katolik euh, yi ñu daal di boole.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 jàpp naa ne nag fanweer yi ñoo ngi nekk ca Île de France juróomi bàyyeekoo itali ñaari Espagne. yeneen ñaari nekk ca États-Unis ñuy xaarandi la nga xamante ne nag moom mooy dogal gu mujj bi nguurub Sénégal daal di yëkki ci noonu itam moo ngi sàkku ngir nguurub Sénégal daal di fësal lim bi nu mu toll ak dayo gu mu am bañ ko nëbb nit ñi moom Boubacar Sèye bu Horizon Sans Frontières moo ko xamle mu ngi jàpp ne nag donte ne nguurub Sénégal moo ngi jël ay dogal yu am solo ngir rek daal di xeex lépp lu jëm ci wàllu mbas moomee lu muy ñaawlu nag mooy que ne nguurub Sénégal du wax dëgg ci lim bi nga xamante ne ñoom ñoo fàttu ci biti réew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 tiis bu nekk mu nekk communication bu ñu métti mais soo xoolee kenn ci ñoom nangul avancé le chiffre que ñoom dañ leen fi pour ñu liggéey war nañu mën a communiquer dans un état de droit dañ leen fi pour ñu leeral président république lii moo xew kat ci diaspora bi ñaata nit fii fii Philippe ñàkk nañ seen bakken mais soo bëggee di wax ay néew te nangoo wax ñaata néew te daa ay service diplomatique il y un problème loolu moo tax ñun ñu ne ñun ci biir diaspora de façon officielle ñaata sénégalais ñoo dee bitim réew ci feebar bi moo tax nous appelons l'état à la transparence sant leen gërëm leen ci teelu bi ngeen doon teelu ngir taataan fi xibaar yi ñoo ngi leen di gërëm ju leen sant fi léeg lu yees fukki simili ajaratu Ndeye Khady Diop ñoo génn ci xibaar yi ci yaatal ci français ñu gërëm bu baax Assane Thioune mi féetewoon ci xarale gi